soo daan lu ngeen gëm bay gaaral suñu yónnee sanga soo daan mooy bay looy jëlale ko te ci président itam mu ngi dëgmal si appel fii la ñuy ubbee bu ñu dasee ñu am problème pour accès yoon am na liggéey bu mu commencé bu su sañoon lu mu a gàtt gën a gaaw jëm yoon mu dimbali ñu ci ndax loo xam ne ak mu ne nga dëkk ñaari bu yàggee day soog ñun appel la ko am te diggante Cambérène bu neex bu jëkkoon ñu tënk daan la kenn mosu woon xalaat jëkkoon Cambérène la bu jëkkoon kenn xalaat ñun bi nekkee xalaat bu ñuy ñëw ñaari Cambérène yi nee ba ci teenu marché bi daal na su meeku la daal raxas sunuy kàddaar yooyu daal di jënd yére yu weex yi sol ko jógee kàddu waaye léegi nga bëgg fa def une heure de temps ñu ngi ko koy jooy di ko ko jooy di ko ko jooy jooy yoo xam ne la duna ndox mukk sans téléphone wax na ko te suma suma doon dimbali balaa loolu demul kenn la ko jox ba lenn kon bu kenn ñëw si noonu di ko jox noonu lenn lillahi wa li rasul lillahi wa li rasul te coow ñeent kenn amul benn joxe bu ñu daan jàppal bàyyi lay jàppal diw feneen musul am wala jàppal sa du bàyyi lay jàppal diw fii ku fi xëccoo waatal ni maamu rek boo xoolaatee sama ko war nga yedd sama ko moo ko waxee violence laaj laaj dañ ko def mais c'est tout ay bos ba mag daal di tiim génn tiim ñëpp kenn mosoo gis boobu xaw dafa la ko géej di bàyyi antum lam taarifuuni wa anna al bahra arafani wa arafa qadri wa anna rabbi jalla wa ala sama kanam sama ginnaaw ni ngeen di taamu ay almal ak yooyu dëkk ba di ngeen xam ne maa ko moom